fin koy tambalé nak dañuy dem feulé ci conseil constitutionnel ginnaw bi nga xamanteni ni di magistrat bi di Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly ginnaw bi président de la république Macky Sall jëlee décret dal di koy nommé bu bok ci membre yi nga xamanteni ño wara war a statué wu conseil constitutionnel jàppale ni que kii di Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly installé nañ ko dembu comme membre conseil constitutionnel ginnaw nak bi nga xamanteni ni di président bi jiite conseil constitutionnel di Mamadou Badio Camara ginnaw bu mu procédé dembu ci altine bi nga xamante ne installation kii nga xamante moy Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly mu bok ci nouveau membre yi nga xamante ñom ñoo wara a institué wu conseil constitutionnel mu saluer li nga xamanteni moy qualité professionnelle am li nga xamanteni moy ay qualité yo xamanteni ni ko ci pro moral yi nga xamanteni moy qualité yo xamanteni ni ko ci walu jëm ci walu humanité ba nopi ki di magistrat bi nga xamanteni mo nek en la retraite di Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly mom cheminé na ak ki nga xamanteni moy président conseil constitutionnel di ki nga xamanteni Badio Camara ginnaw biñu cheminé très longtemps. juge bi nga xamanteni moy Ahmed Tidiane Coulibaly suñu fàttali récemment ki ko nommé par décret président

amna lo xamanteni solliciter ni nañ ko ci état bi ginnaw bu mu invité ki nga xamanteni moy nouveau membre bi mu servir lepp lo xamanteni du indi ben doute ci ay points yo xamanteni dina doon lo xamanteni détermination lay andal engagement lay andal ba nopi mu daldi tontu ci li nga xamanteni moy appel bi nga xamanteni président conseil constitutionnel wote nako ginnaw ginnaaw bu mu adressé woo ñi nga xamanteni moy nouveau membre conseil constitutionnel qui dit di Mamadou Badio Camara

ba noppi mu daal ci yokk li nga xamante ne mooy fonction juge constitutionnel mi ngi exiger wu lépp loo xamante ne jëm na ci dévouement particulièrement ci ay nit ak ay jigen wala ay góor yo xamanteni ni qualifié nañ la don sen rôle doy consister pour ñu assurer lepp lo xamanteni manam moy yamale yemale ñi nga xamanteni moy différent di pouvoir euh, d'égalitaire ba nopi daal di sukkandiku ci souveraineté populaire ba nopi garantir lepp lo xamanteni jëm na ci ay protection yo xamanteni liberté fondamentale ba nopi assurer li nga xamanteni moy transparence jëm ci waye élection nationale muy présidentiel, di législatif di référendaire ba tey suñu xolé ci regardu parcours ki nga xamanteni moy Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly ñi ngi xamal ni ka dal ki di président du conseil constitutionnel muy ben nomination bo xamanteni amul ben promotion pour ben magistrat bi nga xamanteni occuper occupé na fonction yo xamanteni fonction yu éminente la dem ci premier président de la cour suprême dem ci chef de la compagnie judiciaire ba nopi mu doon une nouvelle mission bo xamanteni lu gëna yok exigence bi moy dem ci cursus bo xamanteni ay qualité intellectuelle morale yoo xamante ni ay prédestinem la ba tey suñu sukkandikoo ci moom mi ngi juddu atum 1954 foofu ca Sokone kii di Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly moo commencé woon li nga xamante ni mooy carrière juge bi nga xamante ni moo nekkoon Thiès ginnaaw sortie bi nga xamante ni def na ko ci école nationale d' administration de la magistrature ñu tuddee ko ENAM ba noppi en 1981 ginnaaw loolu bu mu amee benn maîtrise en droit universitaire fii ci Dakar en 1979 la ñu rappelé kii nga xamante ni mooy Mamadou Badji Camara ginnaaw loolu nag xamal ni que magistrat bu gën ancien la nekk ci cour bi nga xamante ni ginnaaw poste bu gën élevé ginnaaw bu mu passé lu toll ci fukki at ak juróom 16 à 40 ans de sa carrière madame Fofotia magistrature cours cour suprême du cours cour de cassation ba noppi daal di dem cour suprême Fofoulin lañ ko reconnaître nag si grand juriste boo xamante bu polyvalent la maîtriser na lépp loo xamante procédure de droit civil jëm ci droit pénal jëm ci droit social ba noppi lire ci profil boo xamante ni suñ ko site internet bi cours cour suprême judiciaire francophone Bataille tey suñu xoolee ci composition actuelle bi nga conseil professionnel Amnako, na ko kii di Mamadou Badia Camara moom président bi qui dit Aminata Ly Ndiaye vice présidente Qui dit di Mame Diawara membre le, qui dit Cheikh Ahmed Tidiane Kouli, bi nga xamante ne installé membre le, qui nga xamante ne aussi membre le, qui di Awadjei, membre le qui dit Cheikh Niaï, membre le. li leen a indil Dal, le magistrat Cheikh Ahmed Tidiane Koulibali, installé nañ comme membre conseil constitutionnel bi démb ci altine bi ginnaaw quelques ay polémiques yoo xamante a bi président de la république jëlee décret bi nga dissoudre les plots de ni mi foofu ca Sénat bi mu noomee fa waat ñu bees sàq ba noppi daal di jël beneen décret pour remplacer ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Sylla bokkoon ci membre conseil constitutionnel ba noppi ñu jëlee ko fa indi pour mu jiite li nga xamante ni Sénat daal di remplacer ki nga xamante ni mooy Doudou Ndir si la ñu tabb ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly pour mu dem remplacer ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Sylla foofu ca conseil constitutionnel mais nag société civile bi dafa am ñoo xamante ni dañ ci génn bëgg ñaari membre yoo xamante pour président delluwaat ci décret dindi leen fa ndaxte dañu gis seen coloration coloration politique coloration politique boobu nag njort lañ ci am dara wóoru leen ci njort lañ ci am li waral loolu nag maanaam dañu bëgg a sukkandiku ci loo xamante ni amul base amul fondement opposition bi moko utiliser comme benn arme de guerre bo xamanteni xamuñu fuñuy taxaw sen programme matul donc lepp loo leen tega rek dinañ ci indi leen manque ni koy waxé rek tay Macky Sall su jëloon ki nga xamanteni mo bok ci opposition bi tay nommé ko par décret pour bu jité li di conseil constitutionnel wala li nga xamanteni moy Sénat du ñak ci opposition bi ñu génn ni président daf leen daf ko fay xaliss pour que mu jàppale ko kon foog ñu génn ci loolu ndax c'est société civile bi dañoo war a neutre parce que société civile bu neutrewul tay day yàq askan ndax su suñ demee ba dégg ci ñoom ñu naan nañ ko dindi alors que président de la république yàlla may ko sañ-sañ sénégalais yi may ko sañ-sañ suffrage universel direct may ko sañ-sañ ci bépp prérogative boo xamante ni mën na jël décret nommé ku ko neex ci civil bi nommé ku ko neex maanaam ci société militaire bi donc je crois que tey société civile bi dañu war a xool lan mooy apaisé wu ndaxte barki démb bi nga xamante ni kii di juge Sabassy fay ñëpp gis nañu ay liens Yo, xamante ni ko ak ki nga xamante mom la doon acte moy Ousmane Sonko kii di frère di euh, nek fofu ci adjoint mairie Ziguinchor ginnaw loolu sen famille yëpp nek fofu ci Sibasson ñom ñep ay membre Pastef lañu wul société civile bi yeeyu ci yàbbu ci ginnaw loolu gis nañ fi fi Alintine dem tok de añ ak ben opposant nek partisan opposant boobu société civile bi musuñu si musuñu ci yàbbi alors que ñooñu waruñu am coloration politique waruñu am ben coloration dañu wara neutre pouvoir su defee yoon ñi ànd ci su deful lu dul yoon ñi euh, dénoncé ko opposition su defee yoon ñi ànd ci su deful lu dul yoon ñi dénoncé ko mais dañuy gis ni que benn société civile boo xamante ni ñoom seen bopp ñoo njëkk a wane seen coloration partisane ci ay politiciens yoo xamante ni ñu ngi ci opposition bi ba tey président de la république su jëlee décret ñen ci société civile parce que dégg naa ko tey si suba ki nga xamante moy mooy Moundiaye Cissé bañ ko wowe appel téléphonique fofu ci sen TV mu taxaw di naan dafa am ñaar ñoo xamante ni dañoo njort dañoo am coloration politique comme da ngeen njort nag da ngeen di dem def ci sen enquête ba mu leer na leen am nañ ay coloration politique ngeen soga ñu parce que su ngeen anticiper li manam da ngeen indi jiixi jaaxa ci xelu askan bi tay stabilité su ngeen ko bëggee ci réew mi nous dem ci ay élection yu apaisante élection transparentes, inclusive transparente parce que si nous ni su doon Sénat wala conseil constitutionnel mën nañu salfaañe wala résultat yaakaar naa ni élection municipale yi Yewwi Askan bi du rafle temps de maire ni élection législative yi il y Askan bi ak wàllu maanaam du tant de député ba avons ñëw diggante opposition bi ak li nga xamante ne parti pouvoir 81 à 82 députés donc il faut que la société civile aussi nous soit neutre xaw a jël seen responsabilité jël seen engagement bàyyi partisan bi bàyyi ragal bi bàyyi ñenn ñoo xamante ni aussi dañ leen di fay ci société civile parce que opposition bi ñoo leen di financer di leen jox xaalis lépp lu arrangé opposition bi ñu ànd ci lépp loo xamante ni arrangé wul opposition bi ñu xëy di ko defar alors que teguñu leen fi pour loolu dañ leen fi teg pour le peuple sénégalais bañ nañ ba ñu ne société civile maanaam ay civil ngeen nekku leen ci parti politique nekku leen ci mouvement nekku leen ci dara kon donc il faut que ngeen réglementer wat seen wax li ñu mën a jàpp daal mooy kii nga xamante ni mooy Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly installé dañ ko foofa ca conseil constitutionnel manam jamono ji bokk na ci membre